غافر ذنب لنا ذنب لنا غافل توبنا للطفه بنا بنا بنا أنا لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا غافل توبنا للطفه بنا بنا بنا أحمدا لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا قابل توب للطفه بنا بنا بنا حمدا لربي خافر ذنب لنا يا ذنب لنا قابل توبنا للطفه بنا بنا بنا ثم صلاة معه صلاة من مسجد من مسجد على الوسيلة شفيهنا لكرم لكرم حمدا لربي ربي غافر ذنب لنا ذنب توبنا للطفه بنا بنا بنا هذا وإن لهم أوده لكل لما جنيت مذ غابلت غابلت حمدا لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا قابل توبنا للطفه بنا بنا بنا فقلت تائبا بلا تواني تواني مبتغيا غفران زل غفراني غفراني حمدا لربي غافر ذنب لنا ذنب لنا عابر توبنا للطفه بنا بنا بنا واغفر لما لمشت باليدين يدين واغفر لما مشيت برجلين رجلين واغفر لما لمست باليدين يدين واغفر لما مشيت بالرجلين رجلين يلا بل نلون مصلاتي ci loxo yi ci loxo yi te bal na fu nu masa dox ci tànk yi te neexu la te bal na nu masa laal ci loxo yi yàlla ci loxo yee soo noo masa dox ci tànk yi te neexu la yàlla bal nu fu nu masa dox ci tànk yi te neexu la ta bal nu fu nu masa dox ci tànk yi te neexu la yàlla bal nu fu nu masa dox ci tànk yi te neexu la ta bal nu fu nu masa dox ci tànk yi te neexu la yàlla bal nu fu nu masa dox ci tànk yi nga baal nu fu nu masa doxa ci tànk yi te neexu la yàlla baal nu fu nu masa doxa ci tànk yi tabaal foo noo ma sa dox yaa nu jox ngëm gi toll mbàkke muy diiwaan. amiru sultaan gaynde bamba ñun de yaa nu moom. yaa nu jox ngëm gi toll mbàkke muy diiwaan. Amiru Sultan Gaynde Bamba Ñunda yaanu moom yawma nisfi shaabanihi shaabanihi yawma nisfi shaabanihi شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه شعبانه يوم نصف شعبانه sahabanihi jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Borom Touba jërëjëfe Borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngalaama Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni gàcce ngalaama Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni jërëjëf ñu ngi jégalu ñëpp bu baax a baax jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu mbokk yi mi ngi noonu seen émission ligne 66 Sénégal TV fii ci kër maam Thierno Imaam maam Thierno sànni moom Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni dégg ngeen ni mu ko waxee xam naa ni dana am ak moom ak beneen jotaay ñu waxtaanee yeneen waxtaan yoo xam ni dana yitteel ñi nga xam ni ñoo jokk ci Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni ak ak ak ak murid waaye ak jullit yi ndax Cheikh Modou Kara moom ñëpp ko moom. Hmm. du mu rekk ko moom. Hmm. Euh, mu ngi noonu euh, ñu ngi amaan mbégte di sant bu baax euh, directeur bi ak ñi nga xam ni ñoom la ñu liggéeyandoo foofu. di sant sama cameraman Moussa waaye ak sama réalisatrice euh, soxna Ndey mi nga xam ne ndeysaan jàmbaar na lool mu jox leen dig daje incha allahu rabbi ak beneen invité fii ci Sénégal TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa